jërë ngeen jëf si uh, seetaan bi ngeen a seetaan QTV ak uh, déglu bi ngeen a déglu uh, Q radio ñu dalal leen si seen jotaay bu mag bi di jotaayu yu xibaar yi. ñu fisal boppi xibaar yi njiiti réew mi président Adama Barrow ni ki rek daal si rek lundi gi daal dina daal di dalloo li nga xam ne daal moo di daal ab projet boo xam nañ ko nag jagle li nga xam ne moo di daal ndaw ñi nga xam ne ñooy nag yeroo fi ñu xamee si rek SOS Children's Village pour rek gis ne ñi nga xam ne ñoo di daal ndaw yooyu nag daal ñu am si loo xam ne daal dinañ ci mën a jàppa dinañ ko yaatal si biir xibaar yi gannaaw bi nga xamee daal at mu nekk nag daal dinañuy faral nag daal di nag jàpp bés boo xam ne daal dinañ ko nag daal di bàyyi xel si rek daal li nga xam ne moo di feebar bi nga xam ne rek mooy jàpp li nga xam ne moo di cër bi nga xam ne moom la anglais di ooyee li nga xam ne moo di daal béréb bu fajukaay bu mag bi ñu xamee si Medical Research Council lu waral ñu nag daal jagleel ab bés boo xam ne dinañ euh, saytul askan wi nag daal seen nag ab wàllub li nga xam ne moo di wérgu yaram dinañ ko atal si biir li nga xam ne moo di lu toll si rek daal ñaari téeméer ak juróom fukki ay góor ak li nga xam ne moo di ay jigéen Euh, tàmbali nañ nag daal euh, nga ab tàggatu boo xam ne dañ leen di tàggat lu aju nag si wàllu li nga xam ne moo aju si wàllu jënd ak daal jaay gannaaw bi nga xamee ne li nga xam ne moo di kuréel gi ñu xamee si rek njaay carax wol maquette ñoom nag daal ñoo nag taxawee li nga xam ne daal moo di daal tàggatu bi dinañ ko yaatal si biir xibaar yi ak yeneen gannaaw bàkka bi ñu daal di yaatal ñu rek dalal leen seen jotaay bu mag bii di jotaay yu xibaar rek daal di yaatal li nga xam ne moo di daal xibaar njiiti réew mi président Adama Barrow rek daal lundi gi moom njiiti réew mi nag daal dalloona li nga xam ne moo di ab projet xam ne dañ ko nag jagleel li nga xam ne moo di daal ndaw wala tout tànk yi nga xam ne dinañuy faral di nag yeroo si kër gi ñu xamee si SOS Children Village li nga xam ne moo di projet bi nag li ko tax jóg nag mooy rek pour rek gis ne dinañ nag taxaw li nga xam ne di daal ndaw yooyu su defee rek daal ñu am si xam ne danañ ci nag daal di jàpp li nga xam ne di daal dalloo bi nga xam moom la njiiti réew mi nag doon dalloo li xam ne moo di xew-xew boobu ci nag daal profité wala daal porox ndol si tamit daal di nag daal fesal li nga xam ne moo di nag daal pexe yi nga xam ne moom la kër googu di SOS Children Village tëral pour rek daal war a topp si li nga xam ne daal moo di rek daal pexe yooyu xam ne moo daal at waaye nag li xam ne moo daal dallu la boo xam ne li ko tax a xam ne daal moo daal ndaw ñi fexe nag daal ñu mën a daal di am li xam ne moo di xam ne si SOS Children Village ab kër la xam ne ñaareel ñi xam ne daal ñoo fay nga xam ne moo di daal seen i nag daal ay nag daal way jur wala daal ñenn ñoo xam ne daal eh, seen i nag daal eh, loxo nag jotut li nga xam ne moo daal seen nag daal gannaaw si rek li nga xam ne moo di daal àddina si nag daal xayma nañ ne bu fekkee ne daal nag daal fukki nag daal li nga xam ne moo di ay tuut tànka kenn si nag daal ñoom rek daal nga gis ne nag daal moom nag daal moo nekk si biir li nga xam ne moo di daal uh, njobootam moom jiitu réew mi di président Adama Barrow nag daal dina xamle ne li nga xam ne moo di daal nguuram gi ñoom nag daal dinañ taxaw li nga xam ne moo di projet bi nga xam ne moom lañ duppee Youth Can Project gannaaw bi nga xam ne tam mu ngi sàkku li nga xam ne moo di private sector bi maanaam ñi nga xam ne daal ñoo di nag daal kër yi nga xam ne ñoo di këri jàmm jàmbur yi ñoom i nag daal ñu fexe nag daal jàpp si li nga xam ne moo di projet bi taxaw li daal ndaw ñi xam ne daal amuñu xëy ñu fexe nag daal mun leen a utal li xam ne daal moo daal xëy bi ab projet la boo xam ne daal fi nga xam nag fa la ñëw nag tàmbalee nag jàppale daal bokk si daal ay nag ndaw yoo xam ne daal seeni lim a xam ne daal nag daal leen nag jàng nga lire li nga xam ne moo di daal ab métier juróomi at yi nga xam ne moom la ñu nag daal di euh, euh, mal si rek daal ndaje moom tamit ki ñu xamee si Omar Soxna moom Omar Soxna nga xam ne moom sax daal bokk na si ñi nga xam ne ab yarluwaan la yaroo nag si li nga xam ne moo di kër googu ñu xamee si SOS Children moom sax bokk na si xam ne ñoom nag lañ njëkk a li nga xam ne moo di daal kër googu si rek daal atum 1982 euh, moom si nag atum at moomu sax daal la dugg si li nga xam ne moo di daal kër googu nag wax na ne daal mu ngi génn si kër googu si rek atum 2001 nag daal di eh, nag daal mun a demal li nga xam ne moo di daal boppam moom sax daal dina war a daal li nga xam ne nag moom la doon mébét si rek addinaam daanaka daal daanaka na ko la fi mu nekk na daal juróomi li nga xam ne moo boo xam ne moo ko moomal fa nag daal eh, daal di mu ngee tàggat lu rek toll si rek daal ñaar fukki ndaw si li nga xam ne moo di daal béré ba li nga xam ne moo di daal béré bi nga xam ne fa la yoroo di rek SOS ci leen bridge nag daal ab coppite bu mag la indi si li xam ne moo di daal ab dundam bu eh, ay eh, eh, kàddoo moom sax daal dina wane daal am na sax daal ay nag daal tukki yoo xam ne daal amal na ko dem na si réewum li nga xam ne moo di Amérique réewum Angleterre ak réewum li nga xam ne moo di daal jaamate na jamono ji wax ne daal mu ngee nag daal njëriñ boppam di nag njëriñ ñi nga xam ne daal daal njobootam si li nga xam ne moo di daal ndaje moomu tamit moom ki nga xam ne moo di njiitu réew mi di président Adama Barrow dalloo na fa nag laal leneen loo xam ne nag daal boole nañ ko si li nga xam ne moo di daal ndaje mi mu daal li nga ne moo di daal kër gii di daal war a topp si diiru li nga xam ne moo di daal juróomi at xam ne dina ko dalloo si rek ndaje mi ki ñu xamee si Jean Pierre Kwame nga xam ne moom nag moo jiite kër gu ko ñu xamee si SOS Children's Village bi nekk fii si biir réew mi nga xam ne moo di nga mën seen projet bi nga xam ne moom lañ duppee di youth kan project ab projet la boo xam dafa jóg pour rek euh, taxaw li nga xam ne moo di daal ndaw ñi fexe nag daal ndaw ñi ut ñu utal leen li nga xam ne daal moo di daal xëy bu ñu sukkandikoo si li nga xam ne moo di daal nag daal ay nag daal kàddoom li nga xam ne moo di kër googu ñu xamee si SOS Children Village ab kër la goo xam ne nag daal yàgg nañ koo nag daal doxal fii si biir li nga xam ne moo di daal réew mi lu rek daal ëpp ñeneen fukki li nga xam ne moo di daal ay at nag daal li nga xam ne moo di kër googu ñu ngi koy nag daal di doxal fii si biir li nga xam ne moo di réew mi di nag taxaw li nga xam ne moo daal ay tuut tànk yoo xam ne daal ñaareel daal seen ay nag daal way jur mënul ñen a yor wala daal seen i ay wayjur nag daal dañ nag daal di génn li nga xam ne moo di àddina ñu di si beneen li nga xam ne moo di daal xibaar si rek daal pour rek daal bokk si rek màggal bi nga xam ne moom la ñoo màggal ab bés wala bëccëg boo xam ne moom lañ nag daal di jakkleel li nga xam ne moo di feebar bi nga xam ne mooy nag faral di nag jàpp li nga xam ne moo di xeetu ciir boo xam ne mu ngi si doomi aadama angale di ko ooyee longs loolu waral li nga xam ne moo di bérébu fajukaay bi ñu xamee si medical research council nag daal amal li nga xam ne moo daal ab nag daal xew-xew boo xam ne dañ nag daal di dajale li nga xam ne di daal askan wi di leen nag daal saytul seen nag daal ab wàllub li nga xam ne moo di daal wérgu li nga xam ne moo di daal yaram li nga xam ne moo di daal xew-xew bi nag daal gannaaw bi nga xamee ne ñaar fukk ak juróomi fan yu nekk si weeru li nga xam ne moo di daal septembre ab bés la wala bëccëg la daal daal di saytuwaat li nga xam ne moo di feebar bi nga xam ne mooy téye li nga xam ne moo di xeetu cër boo xam ne si doomi aadama lay nekk ñu xamee ko rek daal si daal longs loolu waral ñoom MRC amal nag daal ab ndaje boo xam seet seetal nañ ci wi seet nag daal ab wàllu xam ne moo di daal wér-gu-yaram yee leen si rek lu aju si li nga xam ne moo di feebar boobu nga xam ne mooy jàpp cër boobu ñu li nga xam ne moo di daal longs daal di ko xamal li nga xam ne daal moo di dimbale daal askan wi si rek daal ndaje moomu ki xamee si yi wa Muyiwa Oli Oliyima Walami nga xam ne moom nag moo nag daal nekk yoroon na mbal tànk bi ñu xamee si clinical coordinator

bi nga xamee tamit mu ngeen nag daal yiy yàbbi si mbir mi ki nga xamee si Dembo Sané yore nombal tànk bi nga xamee si assistant commissioner of police foofu si Kanifing West a Garanka Jallow nga xam moom mu ngi dëkk si diwaanu li nga xam ne moo di Kër Sëriñ ak Yuma Ndour dëkk si rek ñoom ñi nga xam ne teewoon woon nañ ndaje mi nga xam ne bokkoon nañ nga xam ne ñoom lañ doon saytu seen ab wàllu wér-gu-yaram wane nañ daal seen mbégte ak kontaante jëmale ko si rek bérébu fajukaay bi nga xamee si rek medical research kansu si daal jëf ju rafet yi nga xam ne moom lañ def dajale askan wi seetal leen daal seen nag daal ab wàllu wér yaram Euh, Dembo Sané di assistant commissioner euh, of police euh, Kanifing West moom nag daal dina wane lii nag daal ab mbir moo xam ne lu ama am solo la bu ñu sukkandikoo si li nga xam ne moo daal kàddoom mu ne daal di nag yee askan wi nag lu aju seen wallu wérgu yaram surtout li nga xam ne moo di daal xeetu feebar bi nga xam dinay faral di téye li nga xam ne moo di cër yu nga xam ne angale mu ngi longs ne daal lu ama am solo la Garanke Diallo dëkk si diwaanu Kër Serigne moom wax ab nag jëf la joo xam ne daal jëf nag ju baax la delloo na njukkal Medical Research Council si seen nag daal jëf ju rafet ji nga xam ne moom lañ leen nag daal defal yee ñoom ñi nga xam ne ñoo di askan wi seetal leen nak seen nag ab wàllub li nga xam ne moo di daal wér gu yaram lu mu nag rafetlu la Youman Ndour dëkk si diwaanu li nga xam ne moo di Old Yundum moom it nag wax na li nga xam ne moo di si nga xam ne ndaje mi nag daal dina ko amule daal dajale askan wi seetal leen seen ab wér gu yaram loo xam ne fayeeku leen si nag daal lu ama am la bu ñu sukkandikoo si li nga xam ne moo di kàddu moom sax daal dina wane lii nag bu fekkoon ne daal lu mu waroon a la si beneen bérébu fajukaay amaana dinañ ko nag daal di fayeeku waaye nag daal li nga xam ne daal moo di xew-xew bi nga xam ne moom la Medical Research Council amal daal di nag seetal askan wi seen nag daal ab wàllu wér yaram lu mu nag daal rafetlu la bu ñu sukkandikoo si li nga xam ne moo di daal ay kàddu muy sàkku sax daal si ñeneen ñi nga xam ne ñoo di daal askan wi daañ euh, faral dina nag dem si bérébu li nga xam ne moo di fajukaay yi ñu di leen saytul seen nag daal ab wàllu li nga xam ne moo di daal wér-gu-yaram wax ne daal lu ama am solo bu ñu sukkandikoo si moom ki ñu xamee si rek Yuma Ndour dëkk foofu si rek diwaanu Old Yundum ñu wéyandi si beneen li nga xam ne moo di daal xibaar lu rek toll si rek ñaari téeméer ak juróom fukki daal ay nag daal nit ñoo xam ne góor lañ ñii di jigéen ñoom nag ñoo tàmbali nag daal ab nag daal tàggatu boo xam ne leen di tàggat lu aju nag si wàllub li nga xam ne moo di daal yaxantu li nag daal ab mbir la moo xam ne kuréel gi nga xam ne moo koy amal moo di kuréel gi ñu xamee si rek daal njaay carax wol maquette ñoo koy nag daal di amal ba tax daal ñoom sax di kuréel gi sant nañ gërëm nañ télévision bu mag bi ñu xamee si QTV gannaaw bi nga ne xam le nañ ne lépp loo xam ne ñoom kër gi nag ñu xamee si rek daal njaay carax wall market ñu ngi koy ñu ngi koy amal QTV nag dinañ koy faral daal di ko fisal di ko xamal li nga xam ne moo di askan wi euh, loolu nag daal na daal ñu nag delloo njukkal tamit li nga xam ne moo di daal QTV euh, ñoom ñi nga xam ne ñoo di njaay carax wall market ñoom nag daal tàmbali nañ seen nag daal ñaareelu yoon boo xam ne ñu ngee nag tàggat ay nit lu aju nag si wàllu li nga xam ne moo di daal yaxantu bi nag mooy ñaareelu yoon ñu di ko amal te ñu ngi koy amale si béré bu jàngukaay biñ xamee si Serekunda Lower Basic School si rek daal li nga xam ne moo mi Fatou Ba nga xam moom bokkoon na si ñi nga a moom nag daal dina wax daal bokkoon si ñi nga daal ñoo njëkk a si li nga xam ne moo boobu nag daal am solo la gannaaw bi nga ne moom li nga xam ne moo di daal mooy nag a am nag ndam si li nga xam si rek li mooy mu di rek wàllum li nga xam ne yaxantu su ko defee nag mu mun si moo di li nga xam ne euh, moo di daal euh, boppam moom nag euh, daal dina wane daal bi mu nag daal bokkee si li nga xam ne moo di tàggatu bi nag daal ba nag daal jeexal ñetti weeru tàggatu bi nag daal gis na si nag li nga xam ne moo di daal nag daal ab njëriñ bu nag daal jéggi li nga xam ne moo di daal euh, dayo gis na daal ab yokkute si rek daal wàll wi nga xam moom lay nag daal di yëngu mu sant gërëm bu baax a baax Njaay Carax euh, wol maquette si rek daal jëf ju rafet yi nga xam ne ñu ngi koy defal ñi xam ne ñoo di askan wi surtout ñi nga xam ne ñoo di soxna xam ne ñoo nag yëngu si rek wàllub yaxantu ki ñu xam ne sax moom moo jiitee euh, Njaay Carax wol maquette nekk yore no baltaka bi xamee si chief executive officer wéne na daal mbégteem kontaanteem si rek daal li nga xam ne moom la moo amal ne daal li mbégte la si am gannaaw bi nga xam ne sax wax na ne daal ci nag seen ñàkk ñaareelu li nga li nga xam ne euh, moo di daal tàggatu bi nga xam ne moom la ñu amal nag daal euh, daal séntu nañ nag daal ab dak limbu nag daal euh, takku si li nga xam ne moo di daal tàggatu bi mu nag sant bu baax a baax tam tamit télévision moom ak ñu xamee si QTV si daal jëf ji rafet yi nga xam ne ñu ngi koy def tamit di wone li nga xam ne daal ñoom kuréel gi nag la ñoo def mu nag daal daal di ko rafetlu moom sax daal dina wone la moo amal daanaka daal lu a jël si nag daal ay a des nag daal dañ leen nag daal wax ñu xaarangu mu ñu sukkandiku décoré si li nga xam ne moo di daal kaddu mu nekk li nag dafaa wane ne itte bi nga xam ne askan wi am nañ ko si rek tàggat bi nga xam ne moom la tàggat nit ñi lu aju si rek wàllub dak yaxantu moom sax daal dina wane lii mébétam mooy at mu nekk daal mu tàggat lu toll si rek juróom benn téeméer si li nga xam ne daal moo di ay nit bokk si góor ak li nga xam ne moo di jigéen surtout jigéen yi eh, tàggat leen nag daal aju si rek wàllub li nga xam ne eh, moo di daal eh, yaxantu mu ne daal daanaka bi mu tàmbaleek léegi daanaka daal lu rek toll si rek daal ti téeméeri nit nag daal ñoo nag daal di bindu te daal at mi nag jeexagut bu ñu sukkandekoo rek si li nga xam ne moo di kàddoom daal dina wane daal dese na uh, ko daal ñaari téeméeri nit yoo xam ne daal moom lañ moo tàggat gannaaw bi nga xam ne daal mébétam daal mooy daal si at mi yëpp mu tàggat si lu toll c'est daal juróom uh, benn téeméeri li nga xam ne uh, moo di daal ay nit bu ñu sukkandekoo si ay kàddoom Yaamari Bojang nga xam ne moom ab nag business trainee la wala bokk na si ñi nga xam ne ñoom la ñoo tàggat bokk nag si rek ñaareelu gàngoor gi nga xam ne ñoom la ñoo tàggat moom nag euh, daal wax na daal moom si li moo yëngu mooy nag jaa li nga xam ne moo di lis koloñ si daal di nga xam ne wax na ne euh, bi mu nag daal tàmbalee nag daal li nga xam ne moo xam ne moo di am na lu bëri loo xam ne euh, jàngal nañ ko ko nag daal lu aju nag si wàllu li nga xam ne moo di daal yaxantu bu ñu sukkandekoo rek si li nga xam ne moo di daal ay daal kaddo mu canta gërëm bu baax a baax euh, kuréel gi ñu xamee si rek Njaay Cira euh, Wall Market euh, Njending Njaay Njending Njaay nga xam ne moom it nag daal daal bokk na si nga xam ne ñoo ñoo ñëw pour rek daal ñu tàggat leen moom it nag sant na borom bi di sant daal ki nga xam ne moom moom kuréel googu ñu xamee si rek Njaay Cira Wall Market si rek daal liggéey ju rafet yi nga xam ne moom la moo di nag daal tàggat ay nit nag lu aju si wàllub li nga xam ne moo di daal yaxantu daal lii nag lu ama am solo la surtout nag soxna yi nga xam ne ñoo nag yëngu si rek wàllub yaxantu su ko defee nag daal ñu mun a xam fi nga xam ne eh, fa la ñoo dek seen tànk ndey ndong ak ami ñang nga xam ne ñoom it nag daal bokk nañ si ñi nga xam ne ñoom lañ njëkk a tàggat ci rek li nga xam ne moo di euh, mbir mi euh, daal dinañ njëkkati ay kàddum dénkaane jëmale ko si daal ñi nga xam ne daal ñoo daal dugg bees wala ñi nga xam ne daal ñoo nag tàmbali euh, bees si ñi nga xam ne ñoom la ñoo tàggat nag ñu fonk bu baax a baax li nga xam ne moom lañ leen di jàngal ñu tamit góorgóorlu si diiru li nga xam ne moo di ñetti weer yi nga xam ne moom lañ leen di nag tàggat nag daal lu aju si rek wàllu li nga xam ne moo di yaxantu xibaar bu mu bi di xibaaru li nga xam ne moo di daal tàggat yaram suñu nag daal ay soxna yi ñu xamee si di Gambia Women's uh, National Football Team ñoom nag daal uh, daal dinañ leen génnee si li nga xam ne moo di daal ab jongante boo xam ne daal bu fekkoon ne daal jàll nañ ci dinañ nag daal bokk si ñi nga xam ne ñooy nag bokk si li nga xam ne daal moo di jongante yi daal li nga xam ne moo di football bi nga xam ne daal soxna yi nga xam ne nag ñoo ñooy yeewoo si suufi Afrique nag dinañ koy faral di amal euh, loolu waraloon nag daal li nga xam ne moo di daal suñu nag daal soxna yu jigéen ñi ñoom nag daal réew mi ñu xamee si rek daal Namibia daal ñoo leen génnee ne daal yéen nag daal doole leen mun a bokk mukk si li nga xam ne moo di daal jongante yi nga xam ne moom lañ xamee si rek Women's African Cup of Nations gannaaw bi nga xamee ne réewum li nga xam ne moo di Gambie suñu nag li nga xam ne moo di daal soxna yi ñi nga xam ne daal ñoo di Namibia daal ñoo leen dóor li nga xam ne moo daal moo di daal ñaari yoon ñaari jongante yoo xam ne daal ñu ngi ko doon amal nag daal Namibia nag daal ñoo jël ndam si rek kaw réewum xam ne moo di daal Gambia gannaaw bi nga xam ne daal ñaari jongante yëpp nag daal ñu ngi ko pré wala ñu ngi ko nag daal amal si réewum li nga xam ne daal moo di daal euh, Morocco li nga xam ne moo di jongante bu nag daal euh, njëkk bi nag daal euh, ñu ngi nag daal demee woon Euh, nag daal ñaari bal si rek daal euh, wala ñetti bal si li nga xam ne moo di daal ñaar Namibia ñu amoon ñett Gambia am ñaar ñaareelu li nga xam ne moo di daal jongante bi nag daal ñi nga xam ne euh, ñoo di daal Gambia nag daal ñoo daal di am wala wala daal Namibia ñoo am ñaar. Euh, Gambie nag daal mujjee wu ñëw nag daal di am euh, li nga xam ne euh, moo di daal dara ba tax na daal loolu waral nag daal Gambie dama jamono ji génne nañ leen ci li nga xam ne moo di daal jongante yi nga xam ne daal bu fekkoon ne daal jàlloon nañ nag daal amaana dinañ bokk si ñi nga xam ne ñooy teew si li nga xam ne moo di jongante yi nga xam ne moo aju si wàllu soxna yi nga xam ne ñooy jongante ci wàllu football si li nga xam ne moo di daal suufi li nga xam ne daal moo di daal Afrique ki ñu xamee si rek daal Yaya Mané nga xam ne moom mooy coach wala moom nag daal mooy tàggat ñi nga xam ne moo di soxna jigéen ñi si ñi yëngu si rek wàllum football euh, moom nag euh, daal dina daal def nañ seen kéem tolluwaay li nga xam ne moo di daal kattan seen nag yéene mooy woon euh, pour rek daal jàll si li nga xam ne moo di daal jongante waaye nag li mi nag daal demee daal wala liñ bëggoon nag daal mënuñ ko am ba ñu sukkandiku rek si li nga xam ne moo di daal ay kaddu waaye nag na daal mu ngi nag sàkku nag askan wi gën leen nag daal Euh, dooleel su ko defee nag daal beneen yoon amaana daal euh, liñ bugga nag dinañ ko nag daal mu mun a am euh, buñ sukkandikoo si li nga xam ne daal moo di kàddu moom daal dina wane li nga xam ne daal moo lañ leen war a jox ñoom it ñoom ñi nga xam ne ñoo di soxna yi nga xam ne nag daal ñuy yëngu si rek wàllum football fii si biir li nga xam ne moo di réewum nga xam ne moo di daal Gambie gannaaw bi nga xamee ne lu aju si wàllum football nga xam ne moo di soxna yi fii si biir réew mi mbir la moo xam ne daanaka itteeluñ ko wala sololuñ ko bu baax a baax fii si biir li nga xam ne moo di daal réew mi gannaaw bi nga xam ne daal